agent de Dakar Demdik. Dikk agent ci Dakar Demdik. Nek membre aussi ci amical foot 3D bu Dakar Demdik. dañu bëgg wax nit ñi ne rek ñun rafetlu wuñu suñu mbokk syndicaliste yi di doon ay travailleurs Dakar Demdik li ñuy wax ci biir week-end Moy né ne Fouta Yangarta du priorité Ñom ñoko wax ñun nak ay doomu fuutanke lañu ay travailleurs Dakar comme nous. xam nañu jaar xam nañ nekkoon xam nañ bu baax te ñoom xam ñu bu baax Fuuta nag buñ ko tuddee Fuuta dafa jot wàllam rek ci désenclavement bi nga xamante ne moom le président Macky Sall santaane ci directeur Dakar Dem bi ndax projet président de la République projet national bi lay lay véhiculer bu ay ko Dakar tuddee leen fees dem ñoom ñu dëkk cees kenn ngaangut te ñoo ngi fii ci kër gi te ñoom ñii seen liggéey kenn ngaangut te ñoo ngi fii ci kër gi ñu jëpp dippee ay oto defar ko fees dem mbuur ñoo ngi fii te kenn ngaangut defar ko fees dem Tiwaawan kenn waxut def ko diggante fees dem mbuur cees muy acte de désenclavement boo xamante ni national bi nation Sénégal bi ñëpp ko apprécier ñu toxal loolu war ko yóbbu biir Podor am ay gox ay gox yoo xamante ni dañoo am dañoo nekk ci situation yu catastrophique xam ngeen foofu transport bi oto yu màgget a fa ne te président laaj nañ changé ñu soppi oto yooyu def leen yeneen oto moom ñu jox ko ci oto yoo xamante ni mun na def loolu ci cadre plateau am bi Sénégal dem ndikk mu yëkkati ay oto yóbbu ko Podor pour benn tronçon boo xam ne da ko tuddee Yangarta Fouta Yangarta Fouta mooy Fouta Yangarta mooy Fouta dem dikk comme Sénégal dem dikk donc Fouta ci biir Sénégal la bokk yangartaa yooyu war a désenclaver ay nit yi nga xamante ay doomu sénégalais la ñuy tagg impôt wala désenclaver ay nit li nga xam ay doomu sénégalais la ñuy dëkk ci biir Sénégal ñu ne leen lii du priorité ñooñu nañu xam seen bopp nañu xam seen bopp nañuy wax ak nit ñu dégg nag la ñuy waxal ñoo ngi leen di xaar nag nee nañu dañuy déposer préavis de grève

làqoo ñi nga xam ne dañu fee nekk ba jéem fi lu ne mënuñoo jàll ci kaw Moussa Diop bëgg ñoo chantage parce que xam na ne interconnexion yi mu nekk nii ay post dina ubbeeku yooyu ñu bëgg a xoj maître Moussa Diop pour chantage ko pour ñu am ci post yooyu def nañ daan def loolu dootu fi amati ñun de dootu ñu leen seetaan ñun doomi fuutanke yi ñu laal nag woo nañu képp kuy fuutanke na ñëw déglu ñu suñu diggante ak ñii am nañu ay kilifa nag déglu wuñu lu dul suñuy kilifa ñu fi wax lenn nit lu war ak loo xamante ni suñuy kilifa wax sant ñu ko wala waxuñu ko waaye daal nañu arrêté te xam ne Fuuta ci biir Sénégal la bokk lii dong nga taxoon ñu woo opinion publique bi mu arbitré suñu diggante ak ñii di wax lii ñu xam ne loolu du dox suñu kanam salaamaaleykum ñun duñu ay syndicaliste duñu ay politicien ñun suñu amicale c'est une amicale à politique bu ñu ma fi gisee nag seen yaram dina daw wala seen xol rëcc ndax xam nañ ma